Sénégal Matin site d'information générale et journaliste yu xarañ te seen liggéey Sénégal Matin vous êtes au cœur de l'info abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Sénégal Matin Moussa Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la dalal yow yaa yor euh, kàddu euh, parti bi di bokk gis-gis euh, ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy xew-xew politique li xew àjjuma ji rawatina tey ban commentaire ngay def ci justement manifestation googu nga xam ne autorisé wuñu ko te opposition Yewwi Askan Wi woote woon ko ngir nag ñaawlu listam bi ñu dakkal comme ni nga ko waxee manifestation bu ñu autorisé bu ñu jàppee nag ni ba semaine bële passé bi ñu autorisé manifestation wu waa yeewi bi hmm. def nañ seen manifestation ñibbi dara tojul dara débordé wul ñu encadré leen hmm. suñu seetee itam ci li ñu génnee ci force de l'ordre pour ñu tere leen manifestation bi hmm. xel day mën a nangul bu buñ leen ko nanguloon dina yombal mbir yi dinañ manifester ñibbiwaat seen kër te coow du am fay ñu fàttali ni réew mi manifestation dafa nekk loo xam ne ni ak démocratique la ñu ciy gërëmee Ablaye Wade au passage. Mhm. loolu itam la seetlu ni bu ñu sañoon daal yu mel ni ñu bàyyi leen ñu marche su fekkee ni marche ba narta jur toow narta jur yàq narta jur lëmbe moo tax ma ni arrêté arrêté arrêté bi nga xam ne ni euh, préfet jël na ko. mënoon mhm. naa ñàkk ndax bi mu leen ko mayee ñu def ko. mënoon a leen rek yebal ñu dem ci beneen barab fekkee ni bañ xatal biir ndakaaru la wala li ni mel waaye arrêté bi dafa am gouverneur dafa jël arrêté tënk ko ci ñaari mbir mhm. bu njëkk bi mu ni dañoo toll ci période campagne euh, pré campagne dañuy tere lépp lu niru comme propagande déguisée ma ne dëgg la kay mhm. waaye loolu ñu ngi koy wax média yi maanaam télé yeeg rajo yi privé comme public ndax li tax loi boobu ñëw dama koy fàttali saa su ne mais jamono jamonoy 92 ci ket code consensuel Kéba Mbaye mhm. ci lañ ko jëlee woon ndax dañ daan seetlu bu élection jub see rek mhm. le président Abdou Diouf génn naan lay def tournée économique di wëraale pour euh, profiter di campagne ale mhm. ngir nag yemale moo taxoon jamono jooju te benn télé rek nekkoon fi sax à l'époque wala euh, ñuy pour yemale ñëpp yem ci wàll looloo taxoon ñu def ko ma ni bu dee loolu lañ ci sukkandiku man jàpp ma ni lu pertinent la lu tax ñu mën leen tere waaye beneen bi mu wax dani trouble à l'ordre public day bañ ñu salfaañe wala andi fitna ci dëkk bi mm-hmm. ma ni su fekkee boobu la soo jëlee waxtu waa yeewi yi mm-hmm. mm-hmm. ñu ni wax ni wax ba ni buñ matee ñaari junni ndaw mën nañ dem jëli ji Macky Sall ca palais ba délogé ko ma du waxu responsable ak ku ko mhm. mun wax lu ñu war a condamné la beneen bi ñuy wax xaalis ba ñu sàcc kër Farba Ngom dégg nañ ñuy wax bay mel ni kuy junju xale yi ne leen su beneen yoonee mën ngeen dem daj xam fi xaalis bi nekk ma ne mhm. yooyu day mel ni kuy ñaax xale yi ci andi fitna te moom lañ gis itam démb ma ne bu dee foofu la préfet sukkandiku kenn du ko ko dàqal am na élément yu ko may yoo xam ne ni mu dàq ko njoxtu ni ñiy marche li leen bëgg a yëkkati mooy andi problème euh, andi problème. Mhm. loolu jàppee foofu jàpp naa ni honnêtement du ma ko bañal préfet même bu fekkee ni su leen bàyyi woon ñu marche jàpp naa ni ni li génn ci soldat su ñu mhm. génnoon période boobu doomu itam ñu mën ci leen ndax dama jàpp ni ñu ci bëri ay fuural la euh, dañ koy def rek ci politique pour yokk karaw ci xar mi mhm. pour yokk ambiance ci politique bi mais am na baat yoo xam ne moom ku ko mun ci wax dañ la war a dañ ko war a ñaawlu dañ ko war a condamner moo tax su ma déggee ñenn ci wàllu société civile bi di woote beneen wax te bu nit ñi waxee wax rek du noonu. Mhm. kenn bu leen ci dégg bu dara desul lu dul yenn wax yi ñu bëgg ci wax li ma jàpp démb daal mooy ay gone deewaat ni mhm. mag ñi kenn gisu leen ña doon woote ñu ci bari itam génnuñu seen kër. Mhm. ñii xëy na soldat tee leen tere génn. ñii gisuñu leen fenn ci Ndakaaru. maa ngi gis benn vidéo buy circuler ci réseaux sociaux yi óoruma nag ndax bëgguma tooñ boo xam ne nii la président Habib Sy laa ci gis ma gis xale bu jigéen toog ci ginnaaw xaw ma doom la doom mhm. di doxantu daan ci biir këram naan ndax xale yaa ngi yëngal loo bëgg a wax dañoo woo xale yi ba pare ñoom génnuñu ah, mais yéen doy ngeen seede ndax gis ngeen leen lii lañu wuteeg ku mel ni ab Ablaye Wade gis nga boo xare boo ciy dem nga woo xale yi lu mu métti métti da la ko war a jaral nga jiitu. Mhm. waaye téye say doom wala yóbbu leen école génne doomu jàmm du yoon du dëgg. démb Ous euh, Ousmane Sonko Barthélémy Dias Khalifa Sall Aïda Mbodj Habib Sy lu mu métti métti ñoo waroon jiitu ndax bu waxi jox ñoom ñooy jiitu di wax ñoom ñooy jiitu di woote luñ teg luñ mën a teg seen kanam jar na bañ jàpp leen waaye comme wootoon nañ ko loolu la waroon jiitu loolu laa gëm man waaye ku nekk sa ci gëlu gëy ku nekk ak ñi ngay doxee ñi ma ci yërëm rek mooy ndaw ñi nga xam ne toujours ñoom ñooy fay lourd tribut bi alors que ñi leen koy defloo seeni i doom duñ ko dem ak lu mënti am daal lii dëgg ba dëgg mooy yoon yoon mooy jiitu mooy njëkk ku fi wax laka su dul yoon yoon daa war a tegu sa kaw même bu fekkee ni loi yi ñu wax ni moom la ñuy tëggee des ñu toggaat ko des ñu xoolaat ko. waaye daal ab balaa ñoo wax ci loi yi tey responsabilité yi justement euh, noo koy sit responsabilité yi jàpp naa ni état. Hmm. munoon na bañ a munoon na leen ko nangul. Hmm. encadré leen ndax li ma génn li ma gis mu génn ci politique. Hmm. li ma génne woon jàpp naa ni dinañ def seen marche xëy na même bu dee bëgg nañ def ci leneen ñu génne leen. mu bañ a dem. ndax itam nag ak lu mënti am droit euh, dem ak dikk moom liberté la bu ku nekk sañ am su ku nekk sañuy def. waaye ñoom itam waa yeew yi li ñu wax moo dul waxu kilifa. suñu liste su bokkul élection du fi amee te yow nga nangu ni sa liste baaxul wax ji man leen da ngeen junde bu leen wax suñu liste bokk da ngeen naan ñun bokkuñu waaye Benno Bokk Yaakaar tam bokkul ahan kay loolay wax ju neex a dégg waaye yow nga nangu li nga def baaxul bëgg a sunal loolu man bokkuma ci ñi nekk ñi wax ay solidarité de l'opposition hmm. dëgg fu mu ci nekk nañ ko duut baaraam bëgg électorat warul tax ñu nekk ci position wu naa fekk ku nekkul ci yoon ak boor boo mën ci féete ñun la nekkoo ci yoon munoo nangu ni sa liste baaxul keneen listam baaxul nga ni sama liste day dem par force déedéet da nga naan man kay bokkuma ba pare su ko defee nit ñi ne ah ci nangu na li ko dal waaye kee comme maa moom ñoo bokk àtte moom it warta bokk lii mooy waxi dëgg kon Benno ak Yewwi waruñoo bokk ci élection yi laa gëm te ñiy wax nañ ko dàq tamit àndu leen ci non nañ ko dàq waxu ñu baal ma ci wax bi ñu koy waxee du wax bu sérieux yenn yi waxu naa fekk la ñu baal ma wax ji wax neexul mooy muy dëgg muy nekk juróom-benn juróom-ñett liste juróom-benn yi def naka def li leen war. Hmm. ñaar juum ci ngeen nañ ko dàq ci ci kaw lan et juróom-benn yi nag liñ def. Hmm. nekk ay sénégalais dépenser seen xaalis dépenser seen énergie dépenser seen nekk ay parti légalement constitué de coalitions am dayo yi ci wax ñaar juum nga ne comme ñaar juum ne gis nga maslaa mi ci réew mi la ñu war a baax. Hmm. ki juum te nekkul ci dëgg rek daan ko dangaa juum nekkul ci dëgg puusal na leen xajal leen ñi nekk ci dëgg ñu dem keneen ku wax leneen yaa ngi ci waxu naka sax kandang hmm. loolu mooy liy dëgg maintenant nag su fekkee musaa Diakhaté daa bëgg a falu ba mu jaral ko muy wax lu mu gëmul loolu itam c'est de la loolu mooy ñuy wax manque de sincérité parce que laa gi la ñu war a bàyyi yeewi warta bokk euh, Benno Bokk Yaakaar warta bokk léegi itam la ma waxoon li tax ma ni lu ci mun ci am loi bii nga xam ni moo ñu tënk di loi électorale mm-hmm. lu mu bonadi bonadi moom lañ demee woon élection daan ci mag daan ci lay Wade dem ci élection jël ci ay mairie yu mag parti dem boo njaay yu mel ni euh, dakaar ak Ziguinchor boobu loi mënuñ ko sotti ci biir jeu bi buñ demee ba génn ci élection yi bu jëree toogaat ñu waxtaanee ko ñu toog waxtaanee ko mais kenn du changer règle jeu yi au cours du jeu li mu yées yées moo ci nekk gub moom la ñuy demee Mm-hmm. li am solo ba am solo kay mooy nguur ñu ngi koy jëlee ci urne yi dem vote ji wax seen i nit vote ak seen liste ba disponible même bu fekkee ni jàpp naa ni conseil constitutionnel dafa manqué courage mm-hmm. ndax li mu waroon bind sama njàngum droit soriwul bi mm-hmm. waaye liste bu matul warta bokk liste bu respecté wul parité warta bokk ma jàpp ni liste yeewi comme bu wàllu ñaar yooyu comme bu euh, benn bokk Dakar ñaar yooyu moo leen dal warunoo bokk da ngeen war a beddi tey élection tey jii euh, waxi liste moom la ñuy wax moo waral euh, coow li yëpp mais nag processus électoral bi ba mu door léegi yow nan lan nga ci jàpp. processus électoral parce que parrainage tamit amoon na coow. mais parrainage mosul jóg ci coow. Hmm. man jàpp naa ni parrainage bii nii ñu koy defee baaxul. Hmm. waaye comme ñun ñoo ko nangu woon fii laa la waxoon sa rajo bii laa waxee woon. Hmm. nii la ñu ngi koy ŋàññi waaye ñun kenn am fu lay taxawu toog. ne nañ ko boycotté ndax ñu ñu ëpp ci ñun faloo leen ñoom rayante gii nga gis duñ ko def ci ceeb bu cher duñ ko def ci emploi wu ndaw ñi waaye bu dara desul lu dul jël place bëgg a falu day jaral policier dañuy mel ni ñu ñu ñu ñu xabtal dañu mel ni ñu jëfu da leen di jaral lu nekk bu doon dañ ko def ci ceeb bu cher bi wala ñu def ko ci njàngum xale yi nga dégg waaye heure bu élection ñëw falu ñëw mu jaral leen lu nekk processus bi am na ay manquement loolu ñëpp d'accord nañ ndax boo seetloo même code électoral li ñuy wax bind juridique ñàkk a toog waxtaanee la parrainage bi itam jàpp naa ni ni ñu koy defee des na waaye bu fekkoon ni keroog ba ñu téyee Bougane Gueye Dany keroog ba ñu téyee Fadel Barro la ñëpp sa woote woon ni ah gars yi dañ taxaw mais ku nekk dafa jàppoon ni loolooy problème mu Sénégal ba ñu ne tuyu Karim Wade ñu ne Karim Wade rek la ñu ne tuyu Khalifa Sall ñu ne Khalifa sàll rek la ñu ne tuyu Ousmane Sonko ñu ne Ousmane Sonko rek la du ñu am solidarité d'opposition taxawandoo xeexandoo ku nekk day nekk si ci galu guyam ku nekk nekk sa agenda caché mu manque sincérité commune euh, processus électoral bi nag lu jar a defaraat la. Hmm. lu jar a waxtaanee waat la. waaye dama ni àddina dana xëyul son li andi woon code 92 war naa mën a andi consensus 92 bu Kéba mbay war naa mën a andi acteurs yëpp toogaat ñu tëggaat code électoral bi ba du am benn coow boo xam ne dina ko andi ci wàllu élection su ko defee Sénégal jëm ca kanam ñu appliquer ay loi parce que yenn yi ñuy wax daa teguwul fenn. Hmm. constitution bi soo déggee nit ñi di ci wax. day mel ni la xewoon 2011 moo dellusiwaat rek. mooy. ay mbiru troisième mandat la wax te man yaakaar naa loolu wax ju daan sa rek jàpp naa ni le président Macky Sall xalaatul def troisième justement tey Sénégal bokkul ci ñi nga xam ne signé nañu charte CEDEAO bi jëm ci limitation des mandats ndax loolu amul lu muy wëndu. ah man de jaaxaluma ah, mbirum Karim Wade CEDEAO waxu ci woon mbirum Khalifa Sall CEDEAO waxu ci woon mbirum parrainage bi CEDEAO waxu ndax dégg nga état Sénégal ñàkk ko signé man dama jàpp ni bu ñu jaawale xeex yi ci lo législative la ñu jëm xeex bi mooy fexe ba tere waa Benno Bokk Yaakaar ñu am majorité absolue à l'Assemblée nationale loolu enjeu bi. mais foog nga nekk situation bi ni mel nii di ngeen ci egg. jaam tërëb mooy yaakaar su fekkee nag ni ku nekk daa beru bëgg a yàq xapp euh, li ñuy wax olof bi wax xapp suuf si tere bi su boobaa opposition bi mooy diviser wu dafay arranger le pouvoir mais li ñu war a xeex mooy nan la ñuy fexee tey tere le camp du pouvoir ñu am une majorité à la absolue à la te lenn rek koy may képp dong mooy urne yi te élection yi kenn xalaatul di ko pousse. parce que parce que ñaar juum nañ. li may wax yëpp ay waxi baal ma waxaat fi m'excuse encore du terme ay waxi naa feex kon nangu ngeen ne dinañ dem. ndax déjà yow nee nga. loolu mooy lu ñu teree dem. ah non ñoom ñoom Benno Bokk Yaakaar donte seen nekkuñu ci règle yi euh, kon nangu ngeen ne dinañ dem ak lu ci mënta am. dama ni 2011. Hmm. nit ñi dañu jàpp ni président candidature Ablaye Wade nekkoon ci yoon man ma ni conseil constitutionnel lay déglu. 2019 hmm. bii man la jaan ji mat président Pape Diop nekk candidat ñu dem parrainage ñu éliminer ñu. ñu def hmm. recours ma génn wax ci sa bii ne la. li ma li conseil ko ñu ànduma ci d'accord ma ci. def naa mm-hmm. recours. Mm-hmm. waaye lu recours bi wax rek ca lay tënk. loolu laa waxaat deux mille vingt deux man bokk ma ci nga xam ne ni dañ ñu wax lii suba ñu wax lële damay nekk constant dama ni réew. te am luwaa yi koy tënk même bu luwaa yi desee baax dañ koy liggéey soppi ko. Mm. waaye du ku nekk nam la neexee saa yu la neexee fam la neexee nga utiliser ko loi suba day indi désordre ñun ñoo ci àndoon dem ci parrainage bi dem ci processus bi te moonte Ablaye Wade waxoon nañu ko démb ak barki démb. waaye kenn dégluwu leen ne leen conditions yi ngeen di demee di ngeen ko mat seeni i baaraam waaye boobu li ñor kenn ku nekk ci ñun mooy noo bëgg a faloo hmm. bu ku nekk dem nag ba jaan bi matt la nga bëgg a taxaw ni du fi amee du loolu ba pare di wax leader yi su ñu génnee di xeexi suñu wootee ci xeex yi nañ jiitu ci xeex yi nañ ci jiitu te bañ a jiital xale yi toog seen i kër même bu police téeméeri police nekkee sa buntu kër génn ñu jàpp la parce que da ngaa génne ay doom jàmm yóbbu say doom ñu jàngi wala toog ak say doom loolu mooy liy dëgg politiciens yi nañ ñun ñuy politique nañ respecter les citoyens ku nekk nag na nga assumer say position ak les conséquence yam lay jural ñun daal li ñu leer mooy waagal nañ suñu élection danañ ci dem fexe ba pouvoir bi du am majorité xeex ñoom te benn moyen rek moo am mooy par les urnes leneen lu waay def yaa ngi génn ci état de droit te ñun on se veut des légalistes. mais amoo tiitaange ci élection yi ñu jëm. tiitaange ci wàllu. Euh, violence. Euh, mais est-ce nga ni Sénégal ak politique ak élection ak violence du lu bees il appartient maintenant du man du yow du keneen loolu rôle état la mooy garantir sécurité nit ñi ñu dem vote ji état un état doit être fort dans n'importe quel pays quelles que les positions ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor kaaraange réew mi kenn waru leen salfaañi dañu war a taxaw taxawaay bu mat sëkk lii yoon ni doxal ko ba mu mat sëkk te mu bañ ñu bañ dund ci réew moo xam ni day am xoxatal ak bundu xatal ci boor bu mënti nekk loolu mooy li dëgg li yoon tiitaange gi mënul weesu nag ku nekk def la la war waaye ñun ñëpp ñu tegu ci kaw yoon te yoon itam bañ a jeng loolu mooy liy dëgg li ci des nag élection gëwuma gisuma lenn lu ko war a mën a teree bañ am ñun ñu ngi waajal man mii di wax ak yow barki démb lañ ma def coordonnateur comité électoral bu Dakar bu sama coalition bañ a xuus bañu man itam loi bi dal leen. waaw waaw waaw loolu laa la bëggoon fàttali sax. du ma ko def man man li ma la wax. xam nga bu fekkoon ne li ñuy wax. ñu loolu ni ñuy jëfee. dëgg la doy ngeen ñu seede. dëgg la du ngeen ñu dégg ci wax ju ñaaw du ngeen ñu dégg ci wax ju wormaalul du ngeen ñu dégg ñu jàng ñu jég ñu jéggi yoon suñu d'accordul nag danañ ko jéebaane ba ñëpp déggu hmm. waaye bu yoon dogalee dañuy tënku ci yoon loolu mooy état de droit loolu mooy position de républicain. keneen ku bëgg def neneen il appartient à l'État d'assumer sa responsabilité. Mm-hmm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Moussa Diakhaté yor euh, porte-parole Bokk Gis Gis merci beaucoup. merci beaucoup. Sénégal Matin site d'information générale et journaliste yu te mën seen Sénégal Matin vous êtes au cœur de l'info abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Sénégal Matin.